amnistie euh, dafa nekk loo xam ni mooy li ma bëggoon a daanale sànq bi ñuy wax maanaam réparation boo xam ni complot politique yi ñoo koy def ba askan bi subir le payer le pot cassé. amnistie bi ko jiitu woon doyen c'était pas la la loi Ezzan. Ouais, parce que est que diggante bi am na benn loi d'amnistie bu ñu fi voté depuis loi Ezzan. loi Ezzan c'était je pense en 2004 2002 2004. oui oui bien sûr. Isidore Ezzan mais 2002 2002 2003 côté yooyu ko voté woon. mais ci diggante bi déggaatuma fi loi d'amnistie ok. man en tant que kuy autoproclamé wu ambassadeur de la jeunesse ñi ëpp ñi paye ñi paye le pot cassé c'est la jeunesse ci réparation yi nga xam ne am amnistie moo koy symboliser muy. Euh, ay njuuj njaaj yoo xam ne politique yi ñoo koy def complot bu ñu teg suñu kaw damay génn Sénégal tuuti dem ci réew mu ñuy wax Tchad en 2008 dafa am jarbaatu président Idriss Déby bu ñuy wax Mamadou Nour bu nekkoon France jékki-jékki rek dem ci Mati bi daal di woo frustré yu Tchad ñu daw fekk ko fa géopolitique intervenir ñu armé ko à partir du Khartoum jox ko ay kii mu dajale xale yi ndox jëm si ci capitale bi président Idriss Déby da euh, retrouver force gouvernementale am ñu affronté wu. il y a eu plus de presque 2000 Deux ans plus tard, en 2010, en Côte d'Ivoire, rivalité entre Alassane Dramane Ouattara Roland Gbagbo il y a eu plus de 2000 morts ñu tekki ñaar ñetti at mu am Guinée rivalité entre Cellou Dalein Diallo Alpha Condé seen période politique ñoom ñaar il presque mille et quelque morts. bërki démb mille morts Guinée yi c'était c'était seen période rivalité ñoom ñaar pendant tout ce temps où ñuy rivaliser ci wàllu politique y a plus de mille cinq cent morts ñoom ñaar en Guinée Conakry fii entre Alassane euh, Roland euh, euh, Alpha Condé ak Cellou Dalein Diallo pendant seen at yi ñu rivaliser wu ci politique soo delloo bërki démboo Ndiaye benn opposant bu gën a féroce ci Afrique nga xam ni mooy idolu sax opposant bi ëpp doole fii ci réew mi ñu koy wax Cissé Masra ci même cadre bi bërki démboo Ndiaye dafa commencé di wax lu war a tax mu mën a jaar ci suuf coono yi yenn càjjeen yi mu gëm loo leen boppam di nekk ci internet bi di wax rek wax ju bari di wax wax ju bari ba ñu convoqué ko bi ñu ko convoqué mu ne cinquante mille jeunes la soxla ñu accompagnement pour pour pour pour répondre au commissariat xale yi wuyu ko bi ñu demee ba place de la nation muy à 200 mètres ak commissariat bi ñu jox leen ay ordre ñu bañ a dëpp président Mamad Kaka joxe ordre moo ko waxal boppam. soldaar yi ubbi sawara ci seen kaw. ñu rey ci ñaar téeméeri nit ak juróom-ñaar. waaw ñu ñëwaat ci réew mi léegi. waaw moom laay ñëw fa laay ñëw dama lay rek. en fait man damay xool temps bi te temps bi laay accéléré. ñëwaat léegi ci réew mi. bi ñu bi ñu ci reyee deux cent deux cent quarante morts. barki Demba Ndiaye moom la ñu dellu si waat ñu négocier def amnistie moom moo nekk premier ministre wu Tchad. ak li ci dee ci moment bi may wax nii muy nekk premier ministre France 24 di ko wane muy jàppoo. waaw ñu ñëwaat ci Sénégal s'il la même chose c'est la dire complot boo xam ni politique yi def nañ ko. Mhm. rey ci ay xale yoo xam ni war nañoo mat juróom-ñaar fukk ci bi ñu ko tàmbaleeg léegi 2021 ak tey. Mhm. am ci ñoo xam ni fii may wax yow nii am na si dina am Ousmane dina génn dinañ ko wane mu toog wetu président Macky peut-être. wala xam nga li ci biir amnistie bi déjà. mais Birame Birame nag Birame yow tamit bu fekkee da nga may poser question yoo xam ne réponse bi sa télé bi attanu ko. mais non télé bi attanu boo bu fekkee yow sa liggéey wu x ou y booba dalay gêner moo tax bàyyi ma wax li may wax man la engagé fii lu ma fi mënti wax kenn du porter plainte télé bi man la ñëw jàpp télé xam naa ko non s'il vous plaît monsieur oui da nga ni. Mhm. lii dina am après man ma li am après dama ni amnistie bi. Mhm. lan nga ci xalaat parce que kuy génn après di toog président Macky Sall. Mhm. loolu bu ñëwee ñu wax ci def ci débat mais nañu wax ci loi d'amnistie bi ban gis-gis nga ci am. waaw man jeexintal jéggi nga ko bay wax kiy toog ak Macky Sall ëllëg. non xam nga du ma wax ci loi amnistie. njariñ man ko loolu wax naa la ko suba li am suba bu ñëwee. loolu jot naa la ko nee naa la waxtaan ci. laytaay la bu ñuy laytaay complot yi nga xam ne politique yi ñoo koy def muy population bi di subir conséquence ñun nag amuñu parole mooy la preuve li ngay def nii ñun li ñuy sentir la ñu bëgg a wax ñun population bi nga xam ne ñun ñooy payer le pot cassé mais laisse-moi le dire pourquoi absolument damaa war a wax ci ñële ñoom li ñuy def ñun li ñuy subir ñoom li ñuy def man loolu laa bëgg a wax donnez-nous l'occasion de le dire loi d'amnistie s'il vous mmh. ban jàngat nga ci am caam jàngat bi ma ci am mooy ëllëg ci si biir politicien bu ci mënti wax ak jeunes yi ku ci génn ku ci dee yaay